me سن بون وقت القران موي اي شي بون دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يجامون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين nga xamni jam bi jam yalla rek moo tax yàlla suñu borom bind ko wàcc ko ci àdduna ba noppi jàppandal ko ay jumtukaay yu muy jaamal suñu borom te mooy ak wér bokk na ca ak man ak xel ak xàmmee ràññee waaye terale ko lépp luy xéewal ci àdduna ngir rek jaam bi mën a jekku jaamu suñu borom ba tax mu wax ni wala xad karam naa bani aadama teral nañ doomu aadama ñun yàlla tàggatal ko géej gi ak jéer ji wërsëgal ko mboole wërsëgu teey gën na ko ak sunu jàmm yu baree baree bari nga xam ni li daje ci malaayika ak bàyyima ak ñanaaw lu ci nekk kenn ku nekk ci ñoom dafa am loo cay am am loo ca màggi suñ borom boole lépp def ko ci doomu aadama waaye loolu lépp nag mu doon jumtukaay yoo xam ni daf ko war a jëfandikoo ngir jëkku jaamu suñ borom subhanahu wa taala mu war a bàyyi xel nit adduna du noflaay jullit bi fi ci aduna dañuy fàggu aw yu o xamni moy tax mu am noof laa ëllëg ci barzak ba yomal xiyaam ta mo koy tabal janna waye tok sa bakkan ak banex aduna kep taxul won suñ borom subhanahu wa taala sakku moo tax Seydou Xadim mi dégg aay bi wax ni ci ma dénkaani ba am solo bu mu def daal di wax ni saa bu ngeen xëyee na ngeen jiital jaamu yàlla ci seen lépp na ngeen def naqar muy seen bànneex waaye na ngeen def nof lay seen coono na ngeen jital jaamu yalla ci seen lepp yalla mo ni loolu rek mo tax ma bindi len na ngeen def nakar muy seen banex inna allaha maa sabirin yalla andana ak way muñi waye ni ngeen def lay muy seen coona laqad al insana fi kabadin suñ borom ne nit ki ci coono la ko bind nga xamni bu baxé dina sonno bu boné dina sonno li gën nak kon sonno ci lu lay andil ngërëmal suñ borom ak yermaneem ngir bo ëllëgee nga mën am nof lay waye même ki nek ci bakkan ak tuk adna sax du nakul mukk ndax àdduna moom nof noflaay amu fi mu mel ni nag war nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax dogalu suñ borom ak xeexewee jamono surtout jamono yii nga xam ni surubu zaman maanaam ni jamono di soppax di ak dogalu suñ borom yi ku nekk war cee jàng nga xam ni sa alayhi wa sallam waxoon na ni bu ñu demee ba aaxiru zaman mandarga yi nga xam ni mooy feeñ boo xoolee jamono bii yépp mandarga yooyu rek ngay gis ku ci nekk nag war a jàpp ni natt yi suñ borom subhanahu wa taala di wàcce di ko nattoo jaam yi ak coono yi ak tartar yi yow sa jëf bopp rek moo tax yàlla wàcc ko waaye du kenn nga xam ni sa sikkus bopp da lay doy sëkk soxla say bàkkaari bopp da ngay fexe loolu ko suñu borom jéggale fexe sax xol sell waaye bul ko kenn saa su ne nag ñu ngi fàtte suñuy bàkkaar ak suñuy mooy yàlla suñu xol la kuruus te teewul saa su ne ñu nekk ci dërëb jàmbur ak jàpp lépp lu xew am na kooko jiñ fàtte sa bopp te ñàkk gi ak tawat ak mboolem natt yi nga xam ni kenn bëggul mu am suñ borom waxoon na ne lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim waxaat ne inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yu xayru ma bi anfusihim suñ borom du kuy maye di nangu ndax lam lay may doywu ko dara lam lay xañ wàññiwu ko dara lépp lu muy jëflanteeg yow ci ngëneel rek da koy jëflante ak yow waaye moom dara waru ko moom suñ borom nga xam nattu yi ak ñàkk geeg tartar yi nit ñi ñàkk a jëm gu ñàkk jëm ci seen borom bakkaar yi bari lool te saa su ñuy fittirlu ci ak bew ci ak mooy yàlla ci ginnaawu ndigalu suñ borom yi ba mel ni sax yàlla sant santatu ko kenn suñ borom wax ci alxuraan ni man yàlla maa ngi sadd aw lépp ci dëkk boo xam ni dëkk bu amoon sécurité la guy dund dund bu teey bu dal mu leen wërsëgal ci jamono bu ne ci waxtu wu ne ci bërëb bu ne mu yomb leen lool waaye ba xéewal yi bare ak mooy ba tax ñu fàtte yàlla fàtte àllaaxira jàpp ni àdduna gi këru saxuwaay la di xëccoo ay alal di xeexante di yàqante ngir alal te lu ñoo jooxe benn ko ngir sama jëmm ngir àddunay kese suñ borom nee na ma musal leen ak xiif te mooy ak ñàkk musal leen it ak ragal te mooy ñàkk sécurité ñuy reyante tëjante kaso lorante te dara warul ko dugul sababu lañ jëf wa daraba allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillahi fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un nga xamni kon kep ku nek ñun dafa wara japp ni mbugal mu wacc yow am nga ci part de responsabilité corona bi nga xam ne xew na ci jamono yi ci ginnaaw ñi ngi naan dem nañ dem ñu bare bare ñàkk seen bakkan mboolem réew yi yëg ci seen économie ñu bare bari ñàkk ci seen liggéey ñàkk gu bare bari xew te ma ko waral ba ki demoo ñaay ngeen dégg ay milliers de personnes yu dee ci géej gi jamono yi ngeen dégg fu ne ay lakk te lépp di mandarga meru suñu borom waye sa suñu yaangi gis nit ñaa gëna gën a ci moy yalla ak ci bëw fecc musique taaxuraan ñaam Allah war dimbalé duñ ko def dañu nek ci télé yi ak di baatare ci lo xam du lu si du lenn lu suñu borom gën nga xam ni wax ja sallallahu alayhi wasallam waxon ni annaasu niyamun fa idha ma tuntabihu nit ñi dañuy nelaw duñ yeewu mukk te deewuñu bala ñoo yeewu rek danoo dee te fekk booba rëccu wees na ndax xew-xew yi xew yépp bu ma saana xew nit ñi dañuy yeesal seeni ngëm ak seeni ragal yàlla jëm seen borom di wéetal yàlla ci guddi yi ak ci bëccëg yi di ko tuubal ba suñ borom teggi nag doom defal leen xéewal ndax tuub jëm ci suñ borom dafay waral xéewal dafay waral sécurité waaye dafay waral ñépp it am jàmm dafay tax nit ki ak xolam féex muy dund bu dal du ragal dara ñàkk tuub nag bu amee suñ borom dafay maandu ci nit ñi nga xam ni lu waay jàpp moroomam def loo daw jàpp ni mooy solution ngir nga génn ci coono yi nga nekk keroog boobu nga nga gën a sonn ndax suñu borom rek mooy aji njariñe ji te mooy aji lore ji boo deewee jëm ci moom mu jox la lépp njariñ te fegal la lépp lor waaye boo ko wanee ginnaaw lépp lor daw jëm ci yow te la ngay dàqi doo ko jut mukk an nafra wa durru min arrahmani laysa min al bidaani wa mu mel ni nag ku ci nekk war na jëm tuub dellu ci borom tuub bu sell ni ko yàlla waxee ni yaa ayuha alladina amanu tuubu ila llahi tawbatan nasuha yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla gëm yonente bi salallahu alayhi wa sallam gëm bis bis penc na ngeen tuub jëm ci yàlla tuub bu sell mboolem seeni bakkaar yi nëbbu ak yi feeñ ndax amul kenn ki ñun ku umpule sax xol amul kenn ci ñun kumpale say jëf li nit ñi di njort ci yow ci ak mbaax bu dee dëgg la yow sa jëm bopp xam nga ba xam wér na wala déet li nit ñi ci yow ak sa fànn bu dee dëgg la ci sa jëm xam nga ba xam loolu am na wala déet kon kenn ku nekk jéem a laabal sa xol te génn ci lépp luy kiñaan ak soxora génn ci lépp luy ittewoo sikk nit ñi ak jëleen sikkal waye nga def ci ak ragal borom ak fexé ya sa xol sa xol set ak nga am yeureumal yeureumal suñ borom aduna ak alaxira jambi dafa wara a ci digënté xawfu ar raja wa anna al abda yanbaghi an yakuna bayna al khawf wa raja al khawf moy ragal suñ borom subhanahu wa taala ba japp ni sawara bu fekkoon kenn fay dem yow lay doon waaye am yaakaar yërmane yàlla ba jàpp ne aljanna bu kenn doon fa dem yow mi lay doon al xawfu wal raja fa la jàngu la tànkam nga xam ni doo saalit mukk ak lu say bàkkaar bari bari doo saalit mukk ak lu sa ñàkk tar tar lu say nattu metti metti saa su ne yaa ngi delloo sa xol ci suñ borom te di ko yaakaar waaye it doo bew mukk lu say xéewal bari bari lu sa alal bari bari waaye it lu say bàkkaar bari bari wala sa jëf bu baax lu mu bari bari doo bew mukk ba jàpp ne yaa kenn saa su ne yaa ngi yaakaar yërmande suñ borom waaye saa su ne yaa ngi koy ragal ba jàpp ne yow nekkoo ci yoon nit ki saa bu nekkee foofu rek dina tal boppam wali si muy tan ayibu kenn suñ borom nag subhanahu wa taala wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ñu ko waxal sama jaam ñi leen man ab jéggalaa kon laa te yërmande kese laa làmb nabbi abadiya anniya ana alghafuru rahim waaye nag ki bew topp bakkanam ak saytaane na ko wax ni ko wa anna azabi sama bëggal lu metti la té lépp lo xamni digé digg na ko moom suñu borom ci aw yiw dig bam la ci dig dang ko jox lépp lo xamni téré tere na ko ci safaan tëkku yam ca tek képp ko xamni bayyi bàyyiwu ko da nga dajeeg mom ndax suñu borom lépp lu wax wax na ko nak nopp dara yu tax mu dellu wacc ndax mo ñu sak mom ñu ñuy dox ci coobareem màmpal ñu ak dundu xéewale nu mboolem xéewal yo xam ñu koy jëfëndiko amul kenn ñu ko xamni la nga am say pexé bokk mo la ko may jaam bi amul yenn pexé ngir may boppam alal ngir may boppam tur ngir may boppam lepp lu mëna doon waye amul kenn nit ku ñak lenn ngir sa ñak kàttan wala yu mel non suñu borom subhanahu wa taala moy sakk jaam bi dogal ci mom lu ko soor kon nit ki war a gëm yàlla jox yàlla suñu borom boppam te bàyyee ak boppam te nekk ci li ko sax li mu ko li mu ko digal wa ma min fi l illa ala allahi suñ borom nag bëgg lool koo xam ne day tuub di jëm ci moom nga xam ni sana ay sana wax na ni at taayibu min az-zanbi kaman laa zanba la ki tuubal yàlla ay bakkaaram moo kii mu sa tubal si ku mu sama yàlla ñoom ñoo yem waxaat na ni it alfajiru raaji li rahmatillahi aqrabu minha min al aabidi al kàccoor bi nga xam ni day jëw aw ñaawteef ba xam ni moom day jëw aw ñaawteef waaye mu yaakaar yërmande yàlla si borom jéggal ko muy sàkku it yërmande si borom ak njéggalam sallallahu alayhi wa sallam kooku moo gën kii jaamu yàlla ba bew ba jàpp ni moo gën ñëpp ba jàpp ni amul dara ci bàkkaar kii mooy yàlla te yaakaar yërmande yàlla moo gën koo foofu ndax suñ borom dafa bëggul jamono bu ne nit ki di yëg boppam sanaa sanam wax yi ak tawbatu ala zanbi ka saabuni ala siyaab ala saw bi wax ni ki tuub ak bak ay bakkaaram day mel ni ku ndox mu laab ak saabu fóot ay yéreem ba mbooleem lépp luy tilim denca waaye nag tuub dafa am màndarga yoo xam ne bu fekkee nit ki def ko def na ko dafa war a feeñ ci moom bokk na ci màndarga yooyu juróom-ñetti mbir yoo xam ni wala maa yi tënk nañ ko bi ci njëkk mooy rëcc li nga xam ne weesu bokk ci ay bakkaar rëcc koy xat mel ni ko doon dox dëgg aw xal ni ngay tebee daal fële bu ne ci bëggoon tegal sa tànk da ngay lànk kii tuub di jëm ci suñ borom di wax astaxfirullah noonu la ko war a yëge ci xolam tey bàyyi xel saa su ne aw ñaawteefam waru ko fàtte mukk saa su ne da ko war di fàttaliku di yeesal ak tuubam ci suñu borom te di ko naqal waaye bokk na ci jooxe say faraka ni yaay ngi jéggal suñu borom ba nopp tey nga gën a sàggane farata yàlla yi doo dégg nodd mukk ba bàyyi da nga doon jàpp dem julli weeru koor lu mukk ba nga wor ko mbaa nam la neex nga koy woore ak mboolem dugal suñu borom yi yow na ko sentir nga koy defee sag tuub du ci yow bokk na ca it bi kenn képp koo xam ni aw dog aw di dox na sa diggante ak moom en wala xulóom bu dee nee nga da ngaa tuubal suñu borom ci sa xol waratoo jàppale ci sa xol kenn en war nga fexe sëq ak ñëpp jàmm mooy sa soppe ak sa noonu bokk na ci am kersa yu xulóom nit bu fekkee ni nee na dafa tuubal yàlla ci xolam war naa jombatee xuloo ndax àdduna lu fi jël xuloo am fi bokk na ca it mu bañ a dem lu mukk ci jëf bàkkaar waaye it mu yar bakkanam ci topp suñ borom comme ni mu ko yaree woon ci topp yàlla comme ni mu ko yaree woon ci mooy yàlla boobu mooy yalla li dal la jar li dal la jar nga ci def sa moy sa temps sa xel ngir sa bakkan bop rek nga xam fa ngay dem dang koy programmer la ngay sol te mu wóor na ni ngay def yàlla gërëmu ci dara yitte joju nga amone yitte yitte ju ko raw nga wara am jëm ci sa borom bo xamé ni tuubal nga suñu borom subhanahu wa taala ci saxal waye nga fexé ñam coonay jaamu yàlla ak metit bi ci ay taxawaay ci ay toogaayu yàgg ci ay koor ci xool li nga gën a bëgg nga joxe ko te yàlla tax ci dimbali ñi nga tere comme ni nga mosale woon sa bakkan bànneexu mooy yàlla waaye it nga fexe ba li ngay lekk lew ak li ngay naan ndax biir lépp lu sa waay def foofu la la jëme bu dee li ngay lekk lew na da ngay am force ngir jaamu suñu borom waaye bu dee léwul nag lay tàyyiloo ci jaamu yàlla ak xextan la ci mooy yàlla abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wax na ni sallallahu alayhi wa sallam nee bis ak saaba yi ñu toog mu ñu leen ndax xam ngeen ki tur saaba yi ni ko loolu de yàlla ak ñoo xam yonent bi neen maa ngi leen di jox màndarga yoo xam ni ku ngeen gis mu nekk ci moom xam leen ni suñ borom nangu na ak tuubam te ma ngay góorgóorlu waaye koo xam ne nekkul ci moom na ngeen xam ni tuubal lu yàlla ci xol bokk na ci muy neen koo xam tuub na te xamul ay farataam ak i sunnaam xamul nu muy jaamoo suñ borom kooku day tuubul day wax rek waye ko xamni ne tuub na ta soppiwul ak colam soppiwul comportement ko koy tuubul ba daan ay cien di sol sol bu xat di nan sangara ko tux keroog bi nga xamé ni nga tuubal nga suñ borom waratul laa gis nga sol sol bu mel allah waratul laa gis ci bërëb yenn bërëb bi waratul la gis nga yor len lo xamni dañuy wóor ni lii suñ borom santane wu ko salaa salam ñu ne batay ko xamni xam na tak jaamu yàllam di ko wul ko tuubul waaye koo xam ni na yit tañ nan andal dem ak barki dem daan fo batay ji ñom la ko ne di andal ko it tuubul tuub na te soppiwul jikkoom ba tey mi ngi xuloo ko xeex loo ko def mu mer loo ko wax mu mer du baal kenn du jéggal kenn sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku tuubul nee na koo xam ni tuub na it te du saraxe li ko suñ borom wërsëgal mu néew ko bari du ko bokk ak kenn kooku it tuubul yenu saa sallam wax ni fay zan min al abdi hada al xisaalu fa huwa taibun xaqan jikko yi ma wax bu fekkee ne gis nga ne nag mi ngi ci nit ki kooku day na nga mën a assuré ni ku am njëggalu suñu borom la ku am yërmandeem la kon mbokk yi nañu xaccaat suñuy xol te def ci ragal suñu borom te bàyyi xel dee mi nga xam ne ñu ngi suñu kanam te amul kenn nit ngeen koo xam ni xam na kañ lay ñëw ci yow nit dina xëy di aji dund gont di aji faatu wala mu gont di aji dund yow di aji faatu te dee tënkuwul ci wér ak ci wéri bi tënkuwul ci man ak ci man a di pexey kenn wala kattanu kenn du dul jël kenn te mën naa ñëw ci jamono bu ne adduna gi luñ ci mën a gis ci taar ci bànneex ak loo fi mën a am anna man ayaatu dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fil amwaali wal awlaadi kama sali gaysin aajabal kuffaaru nabaatu summa yaxiiju fataraahu busran na ngeen xam ne adduna ju yees jii du kër dara dul kër fo ak bànneex képp ak ëpp leen ay taar ak puukarewu ëpp leen ay alal koo gis mi ngi baatare di jël ay alal jurul jeex di ko def ci loo xam ni ëllëg coono képp lay jural fàtte sa borom fàtte ñëw bi doole yi say xewoo ci dimbaliwu ci kenn doo jox kenn ci wéet képp koy jox ci boroom koy jox te bëgg ci aw tur képp tax ñu dem ci àll na ba dafa yàq alal yu bari te xam mbokk wala dëkkandoo mën a jige lool moo xam ni bu añee du reer wala bu ndekkee du añ àdduna loolu képp moo fi nekk fii nii boo xoolee suñ borom wax nag kooku day mel ni kamasari ghaysin a'jabal kuffaara nabaatuhu ki nga xam ni taw na taw bu baree baree bari ba meññet mi jub ñax mi sëpp lool mu jàpp ne dugub bi dul jeex la waaye keroog ba mu ñëwee daa sooy fekk ko dara sama yaxit du fa taraafu musfaran lépp doon pënd ak pochette su ma yakunu utaaman wa fil fekk yow sa adduna dund ko ni ko bëggee jox nga iblis sa adduna ba mu jeex wan ginnaaw sa borom subhanahu wa taala mboolem li nga waroon am ca ëllëg yomal xiyaam dund nga ko ci sa adduna boobaa nag wa fil axirati sa sadid alaxira moom mbuugal rek nga fa dese te mbuugalum suñu borom ci alaxira lu toll ni benn cars boo dundoon téeméeri at dund ko ci nguur ci noflaay lekk la neex sol la neex dem fu la neex am lu la neex benn cans ci bëggul suñu borom ëllëg yomal xiyam xat la na lépp kon nañ ci bàyyi xel baax a baax yéenante jàmm te laabal suñuy xol te bàyyi yàqante dara bi te kenn ku nekk sa sikku bopp doolu sëpp soxla nga juubal ko suñu borom te yéen a ñëpp jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nuuran wa rahmatan bil imtihaan ورزقا على لبلنا في اليسر واليسر على التوالي وليجثي به